ko nekk di xool fan ngay dugal sa bopp yéen kaay gii di la Tribune nee na tey la benn at bi coronavirus duggee ci réewum Sénégal waaye lim fi def ci ay njombee ki giraawale ki musiba ma bu kumba maanaam fu ko waaye natt daat na koy passé ci réew mi réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu coronavirus ba mu duggee ci réew mi ak tey jii lu toll ci fanweer ak ñeenti junni yu fekk juróom-ñaari téeméer ak fan fanweer ak ñaari ci ay nit amee nañu doomu jàngoro ji lu toll nag si juróom-ñetti téeméer fukk yoo xam ne faatu nañu ci mbas mi yéen gii di la témoin ñu xëy fekk borom la témoin di Mamadou Omar Ndiaye mu xëy jël xalima mer ba futtoo nee na laisser les vaccins à nos maanaam vaccin yi nga xamante ni daal sunu mag ñi ñoo tax ñoo indi ko ci nañu leen jox vaccin yi yéen kaay gi nee li nga xam ne moo jaaxal gaa yi mooy vaccin yi nga xam ne jot nañu ko indi ci ñi nga xam ne ñooy VIP yi maanaam ñoo aki moo vaccin yi ñoo ngar dajjoo li nga xam ne mooy vaccin yi ba nag fàtte ñi ñi nga xam ne ñoom ñooy la nemmeeku nañ ko ci réew mi mooy vaccin yi nga xam ne ñëw na ci réew mi kilifa yi ñoo ko akimoo yi ne kaay gi di réew mi quotidien xëy bàyyi mbirum vaccin ya coronavirus wax ci mbiri Adji Sarr ak Ousmane Sonko journal bi nee na juge Mamadou Seck daat nay convoqué ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ni ko suba ci àllarba ji yéen kaay gi nee na niki démb la Ousmane Sonko jot ab convocation ma journal bi de la Tribune nee na nag Ousmane Sonko ma ngi nag wutali ab àllarba boo xamante ni àllarba bu nar a yàgg ci moom la yéen kaay gi na ki ne moo moom salon bi borom salon bi tey ji danañu ko déglu Sidi Ahmed Mbaye moom tim tey jii danañu ko déglu waaye nag ab simple témoin rek lay doon yéen a kaay gi nee na njiitul di Ousmane Sonko est-ce que dana ci li nga xam ne mooy convocation bi yéen a gi nee na bu 9 jotee la Ousmane Sonko war a wuy ji yaa ngay démarré yéen a kaay gi délibération nee na nag en ba des daal mooy juge Mamadou Seck convocation bi section de recherche la ko jaarale waa section de recherche ñoom nag bi na ko la maanaam waneel ne jot nga si convocation bi loole nag maître Khoureyssi Ba dafa lankoon ba tëdd sa naaj wa na ko du ma ko déchargé te Ousmane Sonko sant ko ci la maître Ba demee waxtaan ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko nangu ne nañu ko déchargé ci aw turam maître Khoureyssi Ba doo ko delluwaate section de recherche yéen a kaay gi la témoin nee na mbiri Ousmane Sonko am na lenn loo xam ne ma ngi ñu la ndax Khalifa Ababacar Sall ñetti fan ko convoqué woon mandat de dépôt Ousmane Sonko ma la ko bi nga xam ne moo nekk ca impôt et na ñoom nag ñoo ngi sàkko Biram Souleye Diop mi nga xam ne kenn la si ñoom ñu daal di koy bàyyi maanaam ñu daal koy teggi loxo yéen a kaay gi du source nee na maître El mi nga xam ne mooy avocat Adji Sarr yàq na médiation bi ndax maître El Hadji Diouf nee na kilifa diina yi nga xam ne ñooy dox tànki jàmm li ñuy def kenn santu leen ko bu ñu amee lenn loo xam ne war nañu ko lijjanti nañu dem lijjanti seen diina ja Adji Sarr nag amul kenn koo xam ne dina wax ak moom ku dul juge bi Adji Sarr benn li nga xam ne mooy ab médiation te médiation nag du fi am yéen a kaay gi di mi quotidien nee na Mame Makhtar Gueye ak ñi nga ne ñoom la àndala ngir nag ñu gis Adji Sarr rek maanaam jéggi siraat la yéen a kaay gi nee na dàmboo ca ak Karim Xurum Xaax daat nañ leen di bàyyi journal bi nee na upp moo baax ci bu tàng ndax ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi ak élèves yi dañoo meroon ba futu di sàkku ñu libéré dàmboo ca moo taxit gaaw nañu koo libéré yéen a kaay gi nee na Clédor Sène ak Assane Diouf mandat nañu leen dépp yéen a kaay gi di réew mi quotidien ci ci réewum Sénégal ak li élection présidentielle yi nga xam ne moo nar a am sa Tchad moom nag dañu ko tuumaal lu jëm ci wàllum saaga ak wàllum diffamation ak ay relation yoo xam ne am na ko ak première dame bi ñu ko convoqué mu xam ne ñu si faatu ndax yaayam faatu na si akub jarbaatama bëri na xam ne am na ñu si ay gaañu-gaañu moo tax Assane Samb jàpp ne la xam ne moo xew Tchad mën naa xew ci réewum Sénégal bu ñu si deful ndànk bu ñu si deful attention yéen a kaay gi ñoo nekk ci benn bokk yaakaar ak plateau ak rajo yi ni ñu ko akimo woon ngar daajoo ko loole léeg dafay firndeel li nga xam ne mooy complot bi te nag complot bi ma ngi gën di feeña bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom yéen kaay gi du l'observateur nee na bëri na ay doomu réewum Sénégal yoo xam ne jëloon nañu gaal dem ca bitim réew sa Espagne ñoom ñu bari si ñoom danañu leen andi ci réew mi fukki fan ci weeru mars yéen kaay gi di esat xëy wax ci lu jëm ci wàllum présidence bu CAF ak maître Augustin Senghor mi nga xam ne sampoon na mbay Mbaye Diouf Dia moom nag la mu xam ne nee na maître Augustin Senghor dafa war a osé dem ci